أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu fas yéene eggali dars bi ci téere baay bi ñuy wax jaamiul jawaami u addawaawin ñu nekkoon ba tey ci chapitre bu njëkk bi ñu wooyee ko jabrul kasri ci jéng damm-damm yooyu noonu la ñuy jéngee bépp damm-damm ñàkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekkoon si ñoon wala ñàkk koo jox dayoom yàlla nañu yàlla jéngale loolu ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ñu fas yéene ñëw nag ci buntu bi ñuy wax baabul isra yi mooy buntu isra buntu isra mooy buntu rañaan bi mu ne suma layla suma laylal isra fihi taraqa bi buraqin fa xaaza asfal wisaali watlu في شأنه دنا, دنا فتدلى ليس قرب المكان فافهم مقالي مستخل في الله أين وكيف وزمان أمري وأي استحالي ليس يدري كنه القديم حيث واجب كالوجود كل كمال كل الكمال ثم حاز النحلان عند ملك ذي الجلال فرد وذي إفدال ثم وفى قبل الصباح إمامي بحديث أباه أهل الدلال كذبوا والأتيق سمي صديقا بتصديقه للخير الرجال بين ثم ليلة ليلة الإسراء فيه ترقى توب تي غدب إسراء بوبو كرك غدب رنان بي ci guddi googu taraqa yéeg na moom yonent bi salaa salaam bi buraaxin war fas bi ñuy wax buraax boo xamante ne fu xel ba nekk rek wee bi tegu fa fu bët ba nekk rek wee bu tegu fa ngir gaawaay mu ne keroog ba mu waree loolu ba yéeg ci yéegam boobu asfa fa xaasa làkk na moom yonent bi salaa salaam asfal wisaal yi mu ne gën caa rafet jokkoo wala boo nga ne gën saa gën saa sell jokkoo jokkoo bu mu ci jokkoo jokkoo ak digganteem ak boromam mu ne jokkoo boobu moo gën ci jokkoo yi ndax amee na fa lu bëri ci la indaale julli comme niñ ko waxee waaye nag la ca nekk yëpp dëgg-dëgg lu bëri la mu ne watlu na nga jàng fi cheikh ni yi ci mbir moomu wala bokk ci mbiram moom yonent bi wala ci mbirum isra bi danaa ne jege na moom yonent bi salaa salaam fatta dallaa topp mu gën a jege mu ne nag jege boobu lay sa xurbul makaani mu ne déet ngay jàpp ne jege place la yonent bi am fu mu jógee di am fu muy dem di fa fekk yàlla mu mel ni yàlla nekkul fi yonent bi jógee mu ne faf xam maqaal yi na nga comprendre na nga jëli li ma bëgg a junj waaw sama wax daal junj ko na nga ko dégg kii nag képp ko tarbiya ba xam yàlla dina xam loolu naka la lan mooy xikma bi waaye jomm na nag dëgg-dëgg fillaayi mustaxilun fillaayi bàyyi ne mustaxilun jomm na si xakki yàlla fillaayi ay na ay na mooy u wa fan wa kayfa ak naka wa zamaanu wala ban place la wala ban bërëb la ban jamono la mu ne amri sama dund mooy sama gin wa ayu istixaalin loolu jomb na bépp jomb waaw bépp jomb nag laa wax ayu istixaali bépp jomb nag boo xalaat rek nu mu mën a jombee rek mu ne eh, jomb na ci xaq yàlla eh, ñu koy utal bërëb ak wala naan loolu naka laak ak yooyu wala fan la ci ban place laak wala loolu kii la bàyyi ne laysa yadri kunuhul qadimi xadiisun waajibun kal wujudi kullul kamaali laysa yadri déet déet ñuy xam déet di mën a xam xadiisun koo xamante ne dafa sosu mooy doomu aadama nga xam démb rek barki démb rek la sosu koo am dañ ko amal barki démb njaay rek la sosu kunhul qadimi xaqiqatul qadimi bi maanaa dëggi dëggi dëggi dëggam moom yàlla déet daal ku sosu démb di xam xàqi yàlla dëgg dëggam mbóotam ku sosu démb mënul xam dëgg dëggam ndax yàlla moom waajibun kal wujudi amam moom waajibun wareef la lu lu war la di aji war la kal wujudi kullul kamaali comme ni mu waree am bépp ab mat ndax yàlla moom am mu mat ñàkk ba ba du manqué bàyyi nee na loolu am googu lu war la ci yàlla waaw yàlla mu mat te manqué wut loolu dafa war ci yàlla te suñu indee ne fii la place bi sangam la ak place bi wala nii la naa la yonent bi yàlla ak lii ak loolu rek day mel ni yàlla dafa manqué ndax da nga koy da nga koy yaa ngi koy utal ay melo yoo xamante ne moom melut noonu yaa ngi koy utal bërëb boo xamante ne mu mel ni foofu rek la ne bi yàlla loolu lépp soo ko waxee ci xàqam rek da nga koy day mel da nga koy manqué summa xaasa nixlaana topp xaasa làkk na moom mooy am na an nixlaana ay may inda malikin fa buur bi nga xamante ne wala boog ki nga xamante ne moom rek kay buur buur yi kii seen buur mooy malik ki nga xamante ne mag mooy buuri buur yi am na ay may fa buur buuru buur yi zil jalaali ki nga xam ne mooy borom màgg fardin ki nga xamante ne moom mooy ku wéet ki nga mooy càppaa cooli ci wéetaayam gi moom rek a mel ni mu mel moom rek a am li mu am moom rek a sañ li mu sañ ah ki nga xamante ne moom kenn képp kott dong rek moo am ci amam googu ci matam gi ak ci léppam ci sañ-sañam ci ay doxalinam mu ne nag wasi ifdaalin te it moom mooy buur bi nga xamante ne mooy borom gënale ndax moo gënale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam may ko loolu nga xamante ne may ko kenn yonent bi ni mu xamee boromam amul benn yonent bu ko xamee noonu boromam yonent bi fu mu xuus ci ay pays boromam amul benn yonent bu xuus ci àll xam-xamu maarifa yooyu ci boromam yonent bi li mu amit ci ay may jëmale ko ci mbindeef yi ak ay cadeau yu mu jox mbindeef yi amul kenn koo xamante ne am na loolu summa wafa qabla sabaahi imaami bi xadiisin abaahu ahlu dalaali summa wafa summa wafa topp nag mu dellu si moom yonent bi salaa salaam qabla sabaahi njëkk suba teel ñu naan suba cuuy wolof naan njëkk suba cuuy imaam yi sama ilimaan boobu mooy yonent bi salaa salaam nga xam man moom laay topp ci lépp mu ne bi xadiisin indaale xew-xew waaw indaale mbir moo xamante ne abaahu bañ na ko ahlu dalaal yi ñooñ réer yi ñoom bañ nañ loolu ndax dañ ko weddi dañu weddi mbiru isra wal mihraj bi waaw karaama boobu daal yonent bi jógee Màkka dem baytul maqdis dem ba asamaan juróom-ñaar dem ba dajeeg boromam fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa yàlla yenkil ko lim ko yenkil xamal ko lim ko xamal jëflanteeg moom la mu jëflanteeg moom foofu jox ko julli yeeg yooyu yëpp ñëw wax ko nit ñi ñu weddi ko ci waxtu bu gàtt boo xamante ne bàyyi wax na ne sax matul minute wala seconde wala tiers waaye ci minute yàlla wala seconde yàlla wala tierce yàlla xaw ma ñaata kii lay mën a doon waaye loolu lépp benn monde de dimension la boo xamante ne rek yàlla nga ko amal ci amam ak ci ay mystère am loolu am na te eh, daal nekk na te tey ji jeexital yi i- ixraaj isra wal mihraj ñu ngi nii ñun ñëpp di ci jëriñu ñu ngi julli suba ngoon te loolu lépp fa la jóge te pourtant loolu nee na lal ba mu tëddoon sax daanaka tàngooru yaramam ba léegi tey eh, soo fa tegee sa loxo yëg ko ngir kéemtaan bi mu kéemtaane waaye yàlla dafa amul ay waxtu ak ay place ak ay minute loolooy problème bi ndax yàlla dafa jomb ci loolu place ak minute yooyu yëpp daf koy tënk ndax loolu ay mbindeefam lañ kon nag moom yàlla du mën a tënku ci mbindeefam loolooy problème bi bàyyi ne kazabu wala atiiqu sumiya siddiqan bi tasdiqihi li xayri rijaali kazabu euh, weddi nañ ko yo weddi nañ ko moom yonent saa salaam wal atiiqu fekk moom ay ki nga xamante ne mooy aji gore kii gore mooy Aboubacar Sadiq la ñuy wooye al atiq ndax atiqiya mooy lan mooy nga summeeku ci bépp mu bu mu jàmm boo xamante ne rek takk na la wala bokk lonk na ci sa baat moo xam muy sa daraja muy sa dayoo ndax Aboubacar Sadiq dara xoolul dayam xoolul darajaam xoolul alalam xoolul dara xoolul njëkkam ah xoolul teddaangem xoolul dara lépp summeeku na ci rek nangoo doon taalibe topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëggal ko ci li nga xamante ne dëgg-dëgg yoon ndax dañ ko ne ah yow Aboubacar sa waa ji yëgati nga li mu waxati bii de nag moom xam naa ne suñ la ko waxee doo ko gëm bii moom bii moom suñ la ko waxee di doo ko gëm de mu ne su dee moo ko wax daal man mooy sama problème su dee moo ko wax rek dëgg la waaw yàlla takkal ko garaatu siddiqiya moo tax ñu tuddee ko atiq mooy ku gore ku sell ku njëkk ku ci atiq daal mooy loolu mu ne su mu yë siddiqan bàyyi ne tuddeef na ko siddiqan mu di dëggalaakoon bi dëggalaakoon bi tasdiqihi ci sababab dëggalam li xayri rijaal yi ci ki nga xamante ne moo gën ci góor yàlla yi mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon foofu la ndax allazina yuminuuna bil xaybi ñi nga xamante ne gëm nañ xayb gëm nañ lu ñu gisut ba aaya bi jeex ci baqara yàlla nee na yàlla dina leen jox lu leen neex lu sedd seen xol kon gëm loo gisut sax loolu maqaama la te aboubacar sadiq moom daanaka loolu moo ci moo ciy premier ñu ñëw ci baabu fii baabun fii inchiqaaqil qamari bunt la ci xotti bi ñu xotti weer bi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax waa Màkka yi dañu ñëw ne ko waa léegi nag li ngay wax nii yëpp dëgg la nangu nañ ko waaye nag balaa ñu laa gëm dëgg nag ah rek nga xotti weer bi soo xottee weer bi nag ci ñaari xaaj ba nag ci leen lay doog a gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël ñaari dénkam yi rek comme sooy tëj sa ñaari loxo yi ba koy ibbi nii ndànk rek di ko écarter rek ba mu ko defee noonu rek weer bi topp ko muy kéemtaan bu boo xamante ne jamono dina lott ci di ko indi waaw jamono du ko mës a indeeti mu ne chaq chuqa badrun lahu mata talabuhu wa abaw ba'da chaqihi binfisaali xasman inna zaaka chaqun yudaahi chaqi sadril amini badril kamaali bàyyi ne chuqa xotteef na wala xotti na badrun moom weeru badar lahu ñeel ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam weeru badar nangu na xotteeku ngir ne yonent bi sant na ko nga xam ne loolu lu foor la kañ la ak lan mooy sabab xotteeku boobu mu ne mataatala buuhu mu ne waxtu ba ñu sàkkoo ci moom mu def karaama boobu waxtu bi nga xamante ne laaj nañ ko ko wa abaw waaye nag ginnaaw bañ leen ko defalee karaama boobu topp bañ nañu nangul xotteeku weer googu ba'da shaqihi ginnaaw xarab weer bi topp daal waa yéefar yi bañ nañ nangu karaama boobu bin fi saali xotteeku boo xamante ne nag dañ ko xotteeku mu doon weer boo xam ne dañ ko xotti mu doon weer boo xam aji tàggalikoo la aji fasantikoo la mu tàkkalikoo ba nga gis ñaari xaaj yi léegi nag waa waa Màkka ñen laay lii nag moom dëgg dëgg moom lii moom lii daal mën a ñu koo gëm ñëpp seen bopp yi di tourner ci lañ ko daal di wax ne ko léegi daal yonent bi da ngay bàyyi ba suba lii moom on n'en revient pas lu tubaab di wax on n'en revient pas waaw ñu ne daal lii daal da ngay bàyyi ba suba ñu xool waa caravane yi dugg si Màkka di jógee ci yeneen dëkk yi wala ñiy jógee ay ay Sham ak yooyu Syrie ak yeneen dëkk yi ñi nga xam dañuy nekk ca catu dëkk yi nekk ci jógee ci yeneen dëkk di ñëw comme benn weer moo am te weer bi moo nekk fépp ñooñu noonu voyageurs yooyu suñu jógee seen dëkk yi di ñëw ñoon ñu gis ñun li ñu gis ci lañ lay doog a nangul ne li nga def dëgg la ni ko mooy dañuy jàpp ne njabar la rek ba ñu xaaree ba ci ëllëg sa caravane yi ñëw commerçant yi ñu daal di leen laaj ñu daal di tontu ne ah ñun de lii yéem nañu boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan ñun daal gis nañ daal weer bi daal depuis démb ba léegi ñaari xar-xar la def kenn xamul lii lan la. yonent bi ne leen naka mu ñu ne ah ada sixrun mustamirun waaw lii nag moom mooy njabar bi wërale àddina nag loolu lañ ko daal di tontu ne ko yonent bi nag yow dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa mën a njabar. sa njabar bii nag mooy njabar bi wërale àddina loolu di lañ ko tonk mooy ixtaraba saati wan chaqa al qamar mooy ne raw ayatin yurid wa yaqulu sixrun mustamir waaw mooy comme ni ko alxuraan indee noonu bàyyi ne na xas man dina ma gëñ ak gëñ ci waat ci waat bokk mooy dina ma gëñ ak gëñ wala uqsimu billaahi te xam nga bàyyi du moom bàyyi du ma man bàyyi du ma giñ ci lu simple du giñ ci lu lu nd- lu tuuti ñu ne bàyyi li ngay giñ lan la mu ne inna zaaka shaqun mu ne naka boobu xotteeku yu daax yi dina mu niru shaqa sadril amini mu ne xotteek euh, dënnëb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dënnam ki nga xamante ne moom la ñu wóolu waa Màkka la ñu wóolu dëndam ki nga xamante ne yonent bi yàlla boromam ci boppam moom la wóolu dën mu ne xotteeku bi maa ngi giñ ne dina ma nuru xotteeku bi dënnab yonent bi ba muy doon nekk xale ak dënn ak weer bi ndax yonent bi nag dëgg dëgg mooy weer bi kon nag su fekkente ne weer bi xotteeku na fo yonent bi moom xotteeku na xotti nañ dëndam foofu weer bi xotteeku bàyyi giñ ci loolu ñu ne nag ñenn sax ci borom xam-xam yi ci mu fassiruna téere bàyyi sax am na ñu ci wax ne dëgg-dëgg loolu dëfal la daf ko dëfalee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ne tiitaange ba muy nekk xaleek xotteeku boobu nu mu defoon ci moom ñu dëfalee ko ñu may ko ñu fayewaat ko jëf ji waaye ak li mën a xew rek bàyyi waat na ci mu ne badril kamaal yi moom yonent bi nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam mooy weer bi bu mat bi kon nag fii la ñuy yemalee dars bi tey wa ma zalika àlalaahi bi azizin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh seen mbokk seen xarit seen taalibe Moustapha Guèye salaamaaleykum